bismillah cay troisième mandat bi la fu mu ñu jëmee dañ ko fiy tere de terminé yéene maître Moussa Diop day directeur général de Karim di ko waaw dàq nañ ko allahu akbar la ilaha illallah ndax nag daa waxoon ca troisième te moo ni day fanweeri fan ak benn cooru décembre 2018 waaw Macky Sall kon bi muy wut ñaareelu mandat bi ah moom président Macky ci kanamu fukki million ak juróom benn ci ay sénégalais day la leen xamaloon carrément leen troisième mandat mënuma koo am buñ ma falaatee pare naa ca kaw de la justice gis nga tey ji lee waaw Macky nag boo ko ca laajee mu naan la duma ne waaw duma ne déet ah ba mu jaral ko tamit muy dàq ay directeur généraux kii nangam sangam day ah mbir mi nag fi mu nag eh, eh, eh, samp laaj nag jot na samp laaj nag jot na sursaane gis nga troisième mandat boobee poson la dëggantaan dama ne la xaj bi nga xam ne nag maanaam moo matoon kon kii di Moustapha Diakhaté ak Sori Kaba waaw xaj boobee mat na maître Moussa Diop yéeni kaay daaw da càmmi ne waaye xam nga lan moo ragal loo waaw xaj moo tax ba matul Mbaye Ndiaye lan moo tax ba matul bugg a seli ñoom ñi nga xam ne kon nee nañu kii di Macky Sall mën naa am troisième mandat xaj ba kay daa nelaw ba yànd or professeur Moussa Diaw waaw ne parce mbir mi dafa am les soxul lëndëm lëndëm a nekk ca biir ba président Macky Sall ci boppam waaw bëggul ku fi wax ne troisième mandat dañ ko fiy tere dañ ko fiy tere de libération yéene ne troisième mandat ba dee dàq na kon maître Moussa Diop le témoin yéene kaay ne dem na waaye dikul moo Moussa waaw doomu jàngoro ne ah troisième mandat bi dañ koo taafantoloo noonu kese rek ah, ah waaw waaw dama ne la taabalu président Macky Sall eh, a la diggante président Macky Sall ak maître Moussa Diop mii mbir mi neexatul de déedéet léegi nag maître Moussa Diop tam ne naan de tey mbong mbong lu muus muus lu ngir nekk victime dëgg la yéene kaa waaye gis nga président Macky Sall waaw yoroon na ci taabalam jooju ay dossiers yu doy waar yoru nuuk Dakar dem dikk dama ne yow ban ministre mooy xaru di wax ci troisième mandat bi nga xam ne kon dañu koy tere Abdoulaye Xuma day affaire Kaolack waaw ci réew mi quotidien ah ne Sénégal dong day ngay gis ab li taxaw fële conseil constitutionnel quoi yow ab fonctionnaire wala ab général nan ngay mën a araamale wala di daganal ab candidature président de la république yéen ñi ànd ak Macky man Abdoulaye Xuma ma leen di wax mooy yéen a ngo Macky Sall a tere gone koy dëkk waaye yëpp ci Dakar Dem Dikk laas ne troisième mandat ba day yóbbu na Moussa dëgg la Dakar Times ne dama ne Macky nag daqaat na keneen koo xam ni kon moo ko doon défendre dëgg la du Moustapha Niass du Aminata Mbengue Ndiaye dama ne la Macky Sall mi la kii mu dàq tey bokkoon na ci ñi raar jiite parti bokk Macky 2012 di dem ci télé rajo yi di défendre président Macky Sall wax na te yàlla tax Le Quotidien yéene kaa ne yóbbu nañ ko dépôt de Moussa Diop dee dem na dépôt joo ndox maa ñuy rey de askan vox boobu ah, ci wa inna ilayhi rajiun laas Ndakaaru njaay jël jóob ci région yi waaw mais attention de musiba mbaaba kumba de président Macky Sall kay mujj naa fëkk ca kaw taabal ja rek daal di wax ak Serigne Mbaye Thiam di sàkku ca moom nag ñu gaaw liggéey wàllum inondation 2020 yi lée moom président Macky Sall yemu ca ndaxte nag daar daar ñu daal di koy jébal nag rapport détaillé programme décennal fukki at yi la 2012 2020 ci wàllum inondation yi ay milliards de lañ ta def moom président Macky Sall yemu ca ndaxte nee na nañ leen def nag farata gaaw faxas inondation yi ci quartier yi lée bokk ca Kaolack de ak Ndar Kaolack Ziguinchor Guédiawaye ak Pikine Abdou Sama Diouf coordonnateur ngir développement banlieue bi ci tribune yéene kaay waaw nee na ci ay famille ay njaboot yoo xam ne ci mbedd mi la ñuy toggee ci mbedd mi la la ilaha illallah Diouf ne dama ne am na ci ay njaboot yoo xam ne ci biir ndox mi la ñu ne sonn nañu lool lool lool ña sonn kay mooy liggéeykat yi nga xam ne ñoo ne ca King Fahd Palace mairie président waaw ubbil les écoles yéene kay nee na lii kenn mënu koo diku laa la wax ñuy liggéey fii seeni njaatige di leen xoñañal am na ñoo xam ne sax joxe dépense bis bu ne mënatuñ ko téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ñoo xam ne ay soutien de famille lanu mais coono li ñuy dund jéggi na dayo leb na ñoo leba maare day tali man Véronique mi la tabaski bi am na ci ñoo xam ne sax maa leen jëndal xar liggéeykatu King Fahd Palace yooyee waaw Véronique nee na xanaa dañoo yaakaar ne dañoo am boo xam ne kenn du ko laal racine si lu ko neex lay def de patrimoine ndeke Cheikh Oumar Anne la e box bobu li ne du dëgg ministre enseignement supérieur waaw ñoom xam leen nañ ne Cheikh Oumar Anne dem na ko ca OFNAC googee def na déclaration de patrimoine 24 heures yéene kaa ne Babacar Diop FDS waaw daal di nañ koy convoqué ca OFNAC jooje ndax dafa porté plainte Mansour Faye si ayaan Hachem eh, ay way Samba naar ba ca ceba waaw le témoin yéene kaa ne Serigne Boub day ñoom Ablaye Sow chambre de commerce waaw yekkat nañ ko lu mel ni xeme biraan yaayaa wan ci évidence yéene bërëb bi laa la wax di ministre commerce Aminata Assome Diatta waaw ak Matar Laax ak Ousmane Mbaye ñoo fi bëgg a teg ay nit ñoo xam ni xoos naa ñàpp te loolee duñu ko nangu biraan yaayaawan ne Abdoulaye Sow ak ñoo ñee di ko jàppale nga xam ne moos yow alalu askan wi lañ ni di koy jël bëgg a yàq privé bi ngeen box boobu di gësëm day opération goxi seeni ndàmpaay danañ leen ko jox de ñoom waa kër docteur waaw sursa aane corona ga dikkati na de mardi tali waaw kaay ne élection locale ya day waaw mbir mi daal demul dikkul ah, waa lii kan moo ciy profito ah opposition bi mel ni luñ jëm pikiir demul dikkul ñi ànd ak Macky Sall mi lée ñoom moom yorin gu bon ci mbas mi moo leen sonal élection locale yaa ngi ni lée nekk ci guddi gu bët setagul kenn xamul lii lan la professeur Moussa Diaw waaw nee na gis nga élection yi buñ ko amalee date ba nga xam ne moom lañ ko jàpp ah opposition bi danañ leen dóor ba ñuy bëgg a dee opposition bi ngeen gis ni Macky Sall dana leen dóor dóor dóor ci élection locale yi ba ñu wulee njaay <laughs> <laughs> na leen rey waaye ak lu Macky Sall dóor dóor dóor dóor dóor dóor dóor opposition bi waaw suñu pétrole bi du ñu nangu mukk ñu ci dóor déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat tam dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal